question fermée hein. Mm vous êtes euh, euh, inspecteur des impôts mm est-ce que Abdou Laye Sy président de la République dina accepter un inspecteur de la de, de, de des impôts et domaines ñu tëj ko parce que tout simplement dafa bind postene euh, la la comment on dit la justice euh, la clochardisation de la justice continue est-ce que poste bu mel noonu. ça nécessite nga nga nga nga nga jële nit bureau am alors qu'il servait le pays nga tëj ko jusqu'en ce moment-là est-ce que loolu Ablaye Sy président de la République dina accepter loolu ñu teg ko benn inspecteur des impôts. Ablaye Sy président de la République c'est le respect comme vous l'avez dit tout à l'heure de l'indépendance de la justice donc président du moom mooy tëj du moom mooy tijji que ce soit maintenant ou demain c'est pas lui c'est c'est c'est nit ñi dañuy demander l'indépendance de la justice c'est lui qui préside le le le le, le, le conseil il n'interfère pas du tout dans le rendu des décisions même le, le garde l'a dit la dernière fois. mais qui autosaisir c'est le procureur le procureur kan mooy patron le ministre de la justice le ministre de la justice kan mooy patron le président Macky donc on ne peut pas nous dire que. Uh-huh. amul baat si nu justice bi di doxee. amul baat ci rendu décision de justice. le ministère le, le ministère de la justice intervient dans l'administration des services. Mm-hmm. mais. Euh, doxaliinu maanaam euh, euh, doxaliinu la dans la distribution de la justice le juge n'a de patron que sa conscience et la loi amul kenn ku ci kenn ku mën a ku leen mën a defloo lu nga xamee ne àndul ak yoon la preuve pour chaque décision il faut motiver chaque décision il faut la motiver d'accord donc si vous prenez une décision pour laquelle vous ne pouvez pas motiver ça c'est